ñetti at ngir former lu ëpp junni ndaw yu war a former yeneen. ñetti at projet bi nga xamante ne muy projet bu am solo muy ñi nga xamante ne tey ñi ngi ci artisanat bi ci ñeenti corps de métier ñoom ñooñu ñu mën a dem ba nga xamante ne dañuy nekk référence pour jeunes yi fi nekk mais tamit ñoom it dañuy mën a jàngalaat ñeneen pour que xam-xam boobu. mën a wasaaroo muy loo xamante ne day mën a euh, saafara yenn yi nga xamante ne moom la ñu jànkonteel moom mooy ñàkkum xëy bi moom mooy mooy mbëkk mi waaw am na liñ koy jàppee tey ci euro 3 millions la waaye soo ko soppee ci euh, CFA muy alal muy milliards yu bari bari yoo xamante ne te ambassade de France 19M moom mooy Chanel maison Chanel 3FPT ñoo ñu ciy jàppale waaye ñoom itam dina am ñeneen ñoo xamante ne dañ ci dugal seen loxo ndaxte su fekkee da nga former ay xale ba ñu am tàggat leen ba ñu man te la ñu leen war ci ñoom par ñu yor seen pour ñu mën a demal seen bopp duñ ko def ñoom itam day mel ni koo xam ne da ngay root pañe. formé baax na waaye faw ñu aar artisanat mi nga xam ni mbas mi fi jaaroon sonaloon ne leen lool. jamono dafa soppeeku tey gis nañu ak Covid bi xam nañ ne. njaay mi li ci gën a ëpp solo mooy njaay moo xam ne ñu ngi koy jaay ci internet moom mooy li ñuy wax e-commerce e-commerce boobu nag dafa nekk tey loo xam ne dafa am solo lool lool moo tax ñun tamit ci projet boobu am na ci benn programme boo xam ne ñu ngi koy liggéey ak 3FPT pour que ñu gën a xarañ xale yi ci e-commerce boobu. projet bi nag ñu ngi ci ànd ak 19M si ñeenti métier. que janvier boo seetloo Chanel daf fi ñëwoon daf fi bu am solo. ci wàllu défilé boobu nag ñu defoon ay master class master class boobu nag ñun 3FPT ñëwoon nañ ci accompagner leen pour la formation des jeunes ñu tàn tànnoon ci ñeenti métier bu ci njëkk bi mooy bouterie beneen bi di broderie beneen bi di tissage beneen bi di couture donc ay métiers yu am solo la booy seetlu bu njëkk ba booy ne kii da ngay def sëru rabalaay def wala sëru dënkale da ngay yaakaar ne koo xam ne ne que mënul dara moo ko war def loxo di ab projet ngir tàggat ndaw ñi ci liggéey ak entrepreneuriat si lu ñuy woowee artisanat